seydina ahmadu alhamdulillahi sawar terootina terootina magal gi ñëw xolu murid yi seydina ahmadu alhamdulillahi sawar terootina terootina magal gi ñëw xolu murid yi seydina Maxtaar Bamba ko waa moom la waxoon ca weer wa mooy weeru safar la Amadou xaratu yawma sabti samin asar samin asar moom la waxoon ca weer wa mooy weeru safar Amadou xaratu yawma sabti samin asar Bamba ko waa moom la الذي انصر جنابي عند سير وقدر ولك خليلي بجه ابن مدر فتدلل علي ربي ام اسر فيك وفي خير ولا نور بسر هديتني يا خير هدي قد وعد ان يسلي وعد بافضل المعد هديتني يا خير هادي قد وعدوا أن يسلي الوعد بأفضل المعاد هديتني يا خير هادي الذي قد وعدوا أن يسلي وعدا بأفضل المعاد يقول عبد الله وهو أمد خديم من زمات ومدوا يقول عبد الله وأحمد خديم من زمات ومدوا في بالإثامية سيدنا محمد خير الورى من قابل خدمته ثم رعاه ثم سلف الله وسلام على الذي منه الأقلام سيدنا سبيل المقدم عند الذي تسلو ملي خدمي محمد وسيلتي وجندي عن الماء والأزواج النبيا وهذه وسمي الأباري في الليل والمعاد والدغراريا وسابقت في خدمة التقروى عين النبي بها كما تبرعوا والجنس الأمين قد مدفلس المسفى البيت ودماء زرقا ثم الود بالبرايا كلمة لأنبياء إيمان سلمى خلقوا على خروج من وكل شؤون وعلى إن وغيرا هم دون شكر جرسي دعوى بسم ولا يجور دينا حمدا وشكرا لسما غرورا ربي مرا وسوسا غرورا كنت ناسما لسم ختما وسليا بها الدواء وفجنكم خديم الأزناف وفجنكم خديم الأزناف وأنه سبيل المقال وزنا ملتمس من مالك أن ينفع يا الذي أن ينتفع أجعل ألا بجول شاء شلاء أليم بشلاء من الدواء اسم مبارك يقل سبا كم الذي كابد يسبا وجوزة عابدة لله مع الكتاب والرسول الله سمعوا أحمد المناقب في أجل تعجيل راقبي خدم سلفت لمراد خائلا مع سعيد بايتا وخيلا لله والمجد سنن على النبي يا أيها الذين آمنوا صلى عليه وسلم تسليما لبيك ربي وسلمك وخير كل بيدك عبدك الراجل بين يديك مسلم مسلم على في خاطر يديك خائلا يا ربنا إن الورى تدرؤون أوليائكم أليسوا إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكن لنا وجيب لنا لطفا وأمنا يا يا من تعالى لم يكن كفنا نفسي وديني ثم هي ومسكن لك ودية مباد مصيبتي ثم في والولاء ومسكن لك ودية مباد وأكسى دنيا أخرى ففيما أنس في الرزايا وزم سابنا للجنة من بيتها الخوف من الناس من وجملة الإخوان من أقاربي في الدين وفي الدين والجانب فليكن إثنان الأرض يا شمال تولني ولا تكلني لله

سودياه يا من فريوي يا من يا من فغنار سرين توبا def na nii mu màggal bàyyi sëriñ Saliou Mbacké sëriñ bi laa wax borom jumaa ji gën junni alaaji sëriñ Touba bal ma ca ngay laa wax Cheikh ayul iñaanul Mbacké si su nit soxorul ku ñëw fi moom mu baaxal nga mel ni Cheikh fa gànnaar sëriñ Tuuba bal ma ca ngay laa wax def leen nii mu màggal maami Cheikh Abdou Hakim Mbacké sëriñ Tuuba ku ñëw ci moom mu dalal nga toog fi moom mu teral ngay dem mu jox laalal lii la ko gànnaar sëriñ Tuuba la wax bal ma ca ngay laa wax sëriñ di man lum sa sut sos koy woote nag doo ma gis man foofu laa féete Sëriñ Tuuba laa wax borom juma ji gën junni alaaji addi Seexul Xadim ma ngi tuub bu baax bu baax di jéglu jéglu jéglu di ñaan ci barkeb Sëriñ Tuuba xasida yi xasida yi araf xasida wut fi jàng wut fi jàng wut fi jàng yàlla ko sëriñ bi ful yàlla ful yàlla ful def ko ay xéewal xéewal ko ci mbooleem ku nekk ci gox bi gox bi ndax sëriñ bi dañuy karaamati xattu yéen yi sama karaama gi mooy sama mbindum loxo waaye waaye waaye waaye maa ngi wàcc sëñ Tuubaa ni fii ma toogoon léegi di jàng bopp buy metti dama ci daaneel bu baax war na sëñ Tuubaa ba tax na yëf yi xaw a dis lool ci man billaahi ñu jaayanteeg sëriñ bi ci lépp ndax amuñu lu dul xasida yi mooy siyaare sëriñ Seexuna muy sama mag sama bokk ndey ak baay suñu borom dogal muy sama xarit dama wax ni wax ni wax ni lëg nag bu lekkee olof olof olof na ko gërëme coy waaw ginnaaw yàlla bu ma nekkee ndakaaru ji ban ma fi fay xaalis bu weex tar ma am fi waruwaay am fi dëkkuwaay am naa fi lu may dawal am naa fi kër am naa fi soxna ba ki dem la ñoo fi may kër am naa fi soxna am naa ginnaaw loolu bu jàllee suñu seexu naa nii laa koy sante ginnaaw bu suñ tubaa ndax moo ma fi indi moo ma dalal baa teete ma ci liggéey bi ba tax ñu ñeme maa gis di ma fay ay junni yu bari kooku nag kooku gërëmut santoo ko mënatoo sant yàlla maa ngi koy ñaanal ci doole sëriñ tubaa xasida yi te ko mu ndaw mi yàlla fekk njëriñam may siyaare sëriñ Xadim Diouf di siyaare sëriñ Ndam Lo jàmbaari Cheikh Abdourahman Lo maa ngi lay siyaare bu baax di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal di siyaare sëriñ Abdou Aziz mi nga xam ne jàmbaari sëriñ Baara la ko noonu may siyaare sëriñ Baara Faye jàmbaari sëriñ Touba ji maa ngi lay siyaare ñaan ci barkeb sëriñ Touba ak xasida yi léegi ci biir rek damay leeral ni leeral ni leeral ni maanaam murit moom la sëriñ bi téléchargé noo xam ne noo xam ne amul kenn kuy am saw ñun di ko def ci ñoom loolu moom sëriñ Tuubaa rek ko wax sànq wax joo xam ne gars yi dañ teeree ba soog dama ci leen bu ngeen gisee murit ñoom ñu xaw a ñeme di bañ bañ tuuti dañoo xam li ñu am si Serigne ba Serigne Touba te nag si bi kenn du ko am di ci dara. ndax bëy yi mu dajale jox ko mu dalul suñu xel dara wërte mën a dalal ci sama xel ndax sëñ Tuubaa dani biraasu man baarisani biraasu man yu baarisul muntaqi man baarisaman za talabtu min ilahi jalaba wa insaftu min ilahi salaba ku dem ba naan ku ñëw toog yàlla ku ñëw toog man buur yàlla ngay bëri kooku fu mu nekk bëggul noonu boo xam mooy kàddu taxawaayam nag ci digganteem ak suñu borom moom Seexul Xadiim

yegg na ci yegg na ci yegg na ci yegg na ci boo boole woon li góor yàlla yëpp tàgg yonent bi ak ku mën ci doon boo ko defee ci mbuusum ñaar fukk dem joxe sa soxla te boo ko génnee jalaat ko ci suuf ñu ji concurrence bu suñ tubaab indee wenn bayitam ci mu xandimat képp mu wat leen ba mu seet wekk mu yubba siiru kal baaxi bi xat ci karamatan wa in kuntu an ardil madinati sanaan kon kooku du ñuy te ñuy duñu moom noonu nag li ñu sëriñ bi defal xam na moom noo ngi ñaan bis bi bis bi ñàkk bis bi ñàkk bis ko sëriñ bi gën a ful gën a ful gën a ful biñ koy jàpp itam fii lañ ko jàppee woon ci buntu place bi place lay jóg gis ni ñu moom fi toog defe naa mag suñu xaar yi ñu fi toogoon ak suñu Cheikh Omar noonu lañ koy defee ba mu am ñetti at ci daaw ci biir place bi la woon ren ci biir place bi place bi mu xëy di ko màndal ba ngoon jot su demee ne ñu koy puus ba mu dem ci kaw tali bi noonu képp lan koy defee maa ngi ñaan ci doole yi sëñ Tuubaa xasida yi kenn ku ci nekk ka nga dendal ka nga dendal ka nga dendal jox ko sa loxo ko sa loxo ko sa xool ko mu xool la nga ree ree ne ko sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg téwér da nga ko naan sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg téwér boo ree ba noppi ne ko sëñ Muntaxa rek yàlla na fi yàgg téwér waaw kon jërëjëf sëñ Dame bisimilah. ak noonu Mor Dieng. aywa aywa bu ñu yàggal waay. waaw kon jërëjëf sëñ Bàcc. tubaarkàlla ñaan nga am na basiir lool. noonu la ñaanal ci barke sëñ Touba. sëñ booy tax si yaa ko xam. yàlla sëñ Touba defal la ko. barke borom Touba. ñoo ngi nuyu ñëpp rek te ziare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm te ñaan te bàkk seen tubaab képp ku doon barab bii maa ngi gis sama kàddu yàlla yàlla defal la kàttan ba nga njëkk màggal ci bàkki xaari ñu rasul te ko nag ni nga ko bëggee na ñëpp xam ne xam ñaa ngi ñëw kon day waaxu rek ngeen mën li nga xam ne moo des ci programme bi ndax jàngale ñu toog te kenn ku ne xam na ne ci nawet la nekk te asamaan si moom daa xaw yéeme sëriñ Ablaye bi bisiri mi ngi ci yoon muy ñëw loolu lañ ma wax te suñu laay seet mi ngi ci biir seen xaarum jibu ñu toog seen motura sampa ñëpp a ngi bi kon dana jox sëriñ xaarum Diouf mu na doon def barkeeloom bu noppee jàngal jàng bi si xaarim da nga ñëw toog kon sa ñaar nee na Alhamdulillah على الجلال قوم الله àjjana te neexu ndax da a tawat lool. nee na Sëriñ Tuubaa ni mooy bu tukki bi ñëpp safara lañ jëm te biir leex yi a mun kàmba ci dëgg a mooy xam ni lépp moom ñu xamal suñu bopp ni a fay su ma gisee ku wax ci moom a wax dama lay doon ko dem te xam ne foofu la sa tolluwaay yow waaye man moo tax borom Tuubaa dugg la moom a moom bëggul kenn Sëriñ Tuubaa dugg la. ndokk yow. bàcc borom Tuubaa bàcc doo ko yor waaye am baa nga man ko baa nga man ko ci man am nga fulla ba bëgg maa dégg lu bëgg nga téye ko ma sëñ Tuubaa du ma yor moo jar a bëgg boo gisee sànq xale bi mu yàgg ma ñu dégg ko ren fi ma toog sama yaram maa ngi daw jooy naa fay jooy yoo xam ne kenn xoolu ko sax nag booba ñu ngi si biir njàng bi li ma jooyloo mooy tubaab bi bu fexee bu juboon sëñ Tuubaa bi ñu war ci réew pexe bu juboon sëñ Tuubaa tànk bu tegoo ci réew te kon xale yi yëpp ay ay ay ay ay sànganeer lay doon kenn du ko jël turu baax ñëpp boobu juddoo dañu bari mu jël xale yu ndaw ñoo xam ne kenn amaguñu ci fukki at defal seen baat yi ba mu neex moo ko xam ne dañ ko mën a jàng bu yëg mag ñi ñu ko toogee loolu analysé analysé tubaab bi li bëggoon ak yam tubaab bi bëggoon ay système ne ci réew mi di si la la koy wax sànq rek maa ngi naan ko sëñ tubaab ma dam de ndax nagaaw tey foo romb rek na xam baax ni sama safar yaa ngi saf sap Ousmane bi koy wax sëñ yaa gisee kii ni moo ko jàng moo ko jàng bëgg ñoo leen ko mel ne biir ji dafa rapport tilim tàqate xëyoon xam ñagas bu xaaxam sëriñ bi ko fa barki borom ko wax dëgg waaye yaa wax dëgg waay wala dëgg di léegi nag wax jërëjëf Sëñ Tuubaa loolu bu leen ci am complexe lépp moo xam ne wax na jërëjëf Sëñ Tuubaa xam naa dëgg te baax a baax a baax suñu bàcc maa ngi ziar baax na bi nit ku bëgg suñu saa yi bëgg ñëpp suñu baara moo ko ziar baax a baax suñu xaalis nag gaa yëpp rek bi bërki moom maa ngi gis sëñ Muntaxa di la ñaanal loolu nag bés jëfu murit la yal na ko sëriñ bi yokk bàyyi la ak sa tawféex bàyyi la sa sago yow maa ngi gën ci sëñ Tuubaa sëñ bi bay la woon gaañu mel ni yow wallaahi lal asiimi daray sëñ Tuubaa ràpp sax nag waaye waaye waaye dañu te gën a bay seenu sas yéen ay soldaari sëñ Tuubaa ngeen li ngeen yor lépp sëriñ bee ko moom dafa alal dafa sax ci xol maanaam bu la ko yàlla dénkee tuuti rek da ngay a beew am noo mel waaye li nga yor xàmmiwoo ko murid di sëñ Tuubaa yi lépp ci murid yi ko koy def te ku la ruste woon te sëñ Tuubaa tax rusoo ko wuus te sëñ seexu naa sànq dana ma santal ma ko bu baax ndax suñu jëwriñ la suñu xarit la sëñ ma ñaaw mii di sama xarit léeg-léeg sëñ Baara boole baa moom na ma ko boole naa la bàcc na xaar ma kastoor ma dem kastoor toog di xaar ma ñaaw ndekk ma ñaaw ma mbuur léeg-léeg suñ baara ne ma ma ñaaw woo na ma ne ko waaw ma ñaaw woo na waaye maa ngi ni kastoor toog moo woowaat ma ñaaw ma ñaaw ne ma man xam naa fii doon sori naa kastoor Euh, da ngay fexe ñu dajee asalam ma ñëw ba asalam rek ma ñaaw nga Kër Masar sëñ ma ñaaw <laughs> moom sama xarita di ku baax di jàmbaari Seexul Xadiim di nit koo xam ni kenn la ci àdduna bi ndax ni nga koy gisee man rek maa ko mën a reyloo fi mu toll boo ko gisee maa koy daaj bi waaw moom bu nekkee ci tukki bi ñu di si Sénégal ak yëpp man rek maa ko mën a daaj ci àdduna man doo ko daaj bi moog bi yëpp ñoom moom maay seen ko rajee sëñ nag sànq dani euh, moom dafa yàgg bëgg sama njàng ma ne ko sànq bi may njàng da ko waroon a fekk waaye sëñ Alaaji laay wax mu ñëw toog ana gaa ñu ngi leen toog ba noppi. fii annahu basarun. yaa ko sañ. annahu Israel, سمعنا جاولا كثيرا بارزا ci lu gaaw mat naa ragal ci xarnu bi sëriñ baara yaqoolu surtout si Ahmad Lamin fi jadi fakini Ahmad Lamin yow mii di nit xamee dëgg caaxaar déglul ma kañ borom dëgg kemaan sëriñ baara mooy doomi Seexu Bamba doomi Bamba tëmbal la moo ngi jégalu bu baax euh, mais ñëw sax ñëw bi gis bi leeru tuuti ndax sol ndax sol waaye dañuy santaan yàlla rek sant Sëriñ Tuubaa ndax ba weer wi teroo ba léegi bu ñu xëyee dañu jàng juróom te guddi gi moom dañuy jàng ba sonn rek daal di ñëw tëdd loolu nag duñ ko tiitaroo duñ ko naboo nga xam ne jàngkat yoo xam ne nii ba weer wi teroo ba léegi kenn wóowu leen di leen jàngal kon ndimbalu sëriñ bi nag ak baaxam maa ngi ngi Colobane laa jógee te Nour Fall laa yéen jóge fa dem Sacré-Cœur marché ca seen safar bu mag ba maa ko doon jàng maa xaalim bi xaalim bi jàng jox ma maa ngi doog a ñaan léegi waaye li tax ñu def direct ñëw fii gone yi fi ne li ci commencé ci seexu naa wàcc ci bàcc yi ba ci alaaj dañuy sunu rakk di sunu mbokki taalibe ñu bokk ak ñoom yi bu ñu bokkutoon ak ñoom dëkk Touba sax bu ñu wootee lu mel nii seen xam ñoom ñoom dana bàyyi suñu gite ñëw bu ñu mënti jàng sax bu ñëwee ram liyaar ba nga xam ni ñu doon wax ñu daal delluwaat. Seydou Ndao loolu lay ziar ziar mboolem taalibe Sëriñ Touba yi fi teew ak mboolem ñu fi julli yi fi teew ñëpp bàcc loolu lay ziar ziar. te Shamsul Fadli asfara asfara. jërëjëf jërëjëf sëñ Touba. wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman bismillahi rahmani rahim